leeral ko ndax alxuraan ci boppam suñu borom daf cee wax ak yonent bi wax ceeg jullit ñi wax ceeg boppam alxuraan wa maa ya'lamu taawilahu illa allah dafa am ayat muhkamaatun hunna ummul kitaab wa uxaru mutashaabihaatun li nga xam ne nag secret la yoo xam ne dafa ñëw ci alxuraan te doomu aadama yi xamuñu ko nañu taxaw fa nga xam ne fa la seen xam-xam yem li ci des ñu bàyyi ko ña ko yeyoo ak ña ko yàlla xamal bàyyi ko fi nga xam ne mooy seen borom buñ demee nag ba nga xam ne ah weddi nañu secret bi yàlla yàlla amatul secret li am leen rek la zahir ak baatin amatul amul lu dul dëgg gi genn la mooy zahir ku ci nekk yaa ngi ci dëgg ku ci nekkul yaa ngi ci lu dul dëgg daal di dàq nag leneen li ci des lépp loolu moo tax secte yi bari kuréelu lislaam yi murje yi am rawafid yi am qadariya am mu'tazila am chia am te ñun ñëpp ay xalaat rek la ñu topp ay xalaat yi nga xam ne nag kon nga xam ne kon buñ nee dëgg gi genn la te dëgg gi itam dëgg genn la waaye nit ñi defuñu ko genn ñenn ñu ci nekk la ñu nekk lañ jàpp ne mooy dëgg ci biir lislaam sax laa wax li ñenn ñu ci nekk kuréel ba ñu nekk na lañ jàpp ne mooy dëgg nga xam ne kon ba tey kon diine ji na mu nekkoon ci jamono saxaaba yi ak jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam soppi ko na lu bari kon doomu aadama yi seen gëm mu ngi wàññi ko nun nu jàngal nu nenu képp ku bokkul ak yéen diine bu leen ko roy yonente bi sallallahu alayhi wasallam benn bis ñu néew ci bàmmeel yi nga xam ne bi ñu tegee néew bi ci jigéenu bàmmeel bi ñii di gas di ko def ci biir bàmmeel bi ñi ci des ñëpp dañoo taxaw bi ñuy dem benn yahud daje ñoom ne leen yéen a ngi def lan daan def de bu masaan teg néew ci buntu bàmmeel dañuy taxaw bañ suul ko ba noppi ñu ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne wuute leen ak ñoom bu ñu tegatee néew bi ci kaw bàmmeel bi na ngeen toog ci suuf ba ñu suul ko ba ñaanal ko ngeen soo ba jóg dem ngeen gis ne kon gannaaw nun tere na nu nu roy kenn ku bokkul ci lislaam nu roy ko ci lenn tëralal nañ ne yoon wu leer woo xam ne loo jàdd rek yaa ko toppatoo laajti woo ko wala xamul xamuloo ko bu delloo ci nag li nga xam ne doomu aadama yi ci kaw complexé bu ñu complexé ndax gis ay kéemaan yu science indi ak technologie ba ñu jàpp ne ñooñu ni ñu rawee ci wetu adduna la ñu rawee ci lépp ba ñu jàpp ne li ñu nekk rek baax li ñu nekk du dara ñoom it ñu bëgg noo gëmloo ne li ñu nekk du dara gëm loolu ne li nu nekk moo nu tardeel nu gëm ko nooy dof bu ndaw boobu nga xam ne dof bu mag bi noonu la ko naxe woon ndax nun bu nu seetee ne ñoom dañu naan seet bépp ayib ñu bëgg koo taqal ci lislaam ne jullit ñi lislaam a leen tardeel jullit ñi lislaam a leen ñàkkal jullit ñi lu nekk ñu wax ko ñu ne waaw jullit ñi kon ba ñu jàppee lislaam dëgg ñoo moomoon adduna bi ñoo notoon la tàmbalee ci Inde ba Gaulle maanaam France te France nekk moom Espagne te booba la ngëm gi gën a dëgër booba la xam-xam bi gën a bari bu lislaam doon tardeel nit kon jullit ñi du ñu not adduna bépp ba moom ko booba li ci def ci adduna kenn xamu ko woon xamaguñu woon ne Amérique am na kon kay lislaam day tax jullit bi am kattan am fit wakiilu ci boroomam du yox yoxi mukk du jaaxle mukk du jàq mukk ndax xam na ne li yàlla dogal moom fokk mu am bu adduna bépp àndandoo woon jéem la lor te suñu borom namm ko duñ la wàññi lu toll ne bën bën a pusa jullit bi dafa war a am wóolute googu mu wóolu it ne wóolu ne bu adduna bépp àndoon bëgg koo jëriñ te yàlla andu ci duñ ko jëriñ mukk mu wóolu it ne bu ko musiba mi gën a rëy daloon itam day wàññi bàkkaaram rek wala mu dindi bàkkaaram wala mu fegal ko ëllëg mbugal mu ko waroon a dal nga xam ne du yokkat du du am naqar ci li ko dal mu wóor ko ne du ñee kenn ndax du nit ki mën a am mu xam ne adduna rek la lépp luy adduna mën na dem balay nit ki dee bu demul it nit ki dana deewa ci ko fi te dana ko layoo ëllëg yow mi ko ñàkk ñàkk nga ko tey mën nga koo am ëllëg kon lu yàgg yàgg doo xaddi doo ñàkki nga xam ne lislaam kon dafay armé jullit bi armé xolam defar ko ba nga xam ne lu yàgg-yàgg du jaay ngorom du jaay diineem du yox-yoxi du xaddi du doyadi itam day dëgër ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na al muslimu al qawi xayrun min al muslimi daif jullit bu dëgër moo gën jullit buy yox-yoxi mu xam la it ne ki gën ci yéen ba ngeen tuubagul bu ngeen tuubee it mooy gën ci yéen mooy ki gënoon a dëgër gën a am ngor gën a am fulla gën a am fayda nga xam ne li sallallahu alayhi wa sallam di wax naan al mu'minu laa yuldagu fil joxri marratayni ku gëm yàlla dëgg du dugal loxoom ci kan jiit fett ko wala jaan màtt ko mu dellu du ko ci dugalaat dafay xam ne ne jullit dafa war a takku dafa war a takku di seet li nga xam ne moo koy lor mu xam ko te bu ëllëgee kenn du ko ci mën a dugal de boole fulla ak fayda bu adduna bépp dajale woon ne ko defal lii te mu xam ne lii du noonu du ko tax kon nit jullit bala nga koy mën a yilif rek da ngay fexe ba l'islam ji wàññiku l'islam ji manqué waaye feet jullit dëgg dëgg dëgg la lu yàgg yàgg du la naw daf lay xeeb te daf lay seexlu ndax day xam ne doo dara yëpp rek nga boo dee dem safara loo am ci àdduna day xam ne ab jay la rek te dana ko leer ne ëpploo ko xel ëpploo ko pexe gënuloo ko dara yàlla moo la jay rek jox la àdduna séddee ko moom àllaaxira bu ko defee jullit bi dana am dëgëru du roy lu dul ki nga xam ne moo ko tane ci lislaam wala moo ko gañe ci lislaam wala ki nga xam ne moo ko gën a xam lislaam wala moo ko gën a xam yàlla ndax kooku doo nga jara roy ndax moom ngay roy mucc moom ngay roy am la nga bëgg ëllëg moom ngay roy am fulla moom ngay roy am fayda leneen lu mu doon nga toppadoo sa moroomum jaam mu mu doon booba yow ci sa bopp da ngaa doye di da ngaa ñàkk fayda dong waaye l'islam tere na la loolu bu la nit ki ne da ngaa fanatique fanatique ci yàlla moo gën fanatique ci doomu aadama te bu yàgguloo lañ fi daan ay doomu aadama yoo xam ne dañuy rang ay kilomètres di ziar koo xam ne maanaam xaw ma Karl Marx la xaw ma Lénine ñu solal ko costume mbome ko def ko ci néegu weer bëgg ko ziare xool ko rek ñuy rang ci naaj lu mat kilomètre xanaa fanatique ci doomu aadama joo xam ne moo ngi yow yam képp ëpp la dara mënu la dara bu fekkente ne fanatique ci loolu ñoom aayal luñ ko bëgg a fanatique aayal ku fanatique ci yàlla wala di ko ko ñaawal mu gëm loolu ba complexe bëgg a soppi ci aw doxinam dara ñàkk na fayda ñàkk na fulla kooka du doon nitu dara jullit day gëm ne ku dul jullit moo la gën ku dul jullit doo lenn lu dul jullit jullit moo moo xam ne moo war a gën a am fayda ñëpp gën a war a am fulla ñëpp moo gën a war a takku ñëpp te waru la yox yoxi waru la xaddi ndax xam nga ne yàllaa yor lépp te moo koy joxe te waxtu wu ko bëggee joxe kenn mënu la tee mu joxe ko lu mu la xañit nag bu adduna bépp daje woon itam duñ la ko mën a may ñu gis ne kon l'islam mooy defar nit ki li fi l'islam def benn mbindeef defu ko fi réew yi ma wax ne l'islam leen dajale yilif leen boobu te ba ba jullit ñi amee melow jullit dëgg waaye ba ñu demee ba dindi melow jullit bi melow melow nitu àdduna ca booba lañu nasax ba ñeneen ñu dul jullit yilif leen Andalousie ngi ni Espagne ak Portugal juróom ñetti téeméeri at la leen jullit ñi yilif waaye ba ñu nasaxee ba ñu leen di génne réew ma ba ñu leen notee ba di leen génne réew ma ndax booba ñoom seen bopp dañu tàmbali woon xëccoo fu nekk waaye nekk fa ne maay sultaan laa buuru jullit laa kenn ku nekk bëgguloo lu dul yéefar bi rey sa moroom ndax li ngay wujjeeg moom ak li nga ko añaane ba nga xamee ne nag doye di googu ak bëgg adduna googu dugg na leen la ñu dal di dellu gannaaw boo ba tey nag dañu ñu di dellu gannaaw bi nga xamee ne yéefar yi jóge Europe li ñuy wax les croisades maanaam alxurubu salibiya ñi daan ñaawal l'islam naan l'islam jeesee ko taxawal xanaa dañoo fàtte croisades yi croisés yi ñoo daan jóge ba ba pape bi bi nga xamee ne jullit ñi ñu ngi xutba ci ajjuma yi di ñaanal l'islam di soññ jullit ñi ci góorgóorlu jullit ñi fekk seen xol dem na déglootuñu leen pape bi di préparer moom ay discours am wan leen ne jullit ña nasaraan ya nekk ca penku ñu ngi leen di lor ñu ngi leen di doyade ñu ngi leen di suufeel ba croisés yi jóge Europe dem rey ci ñoom ay junni junni junni not leen def ci ñoom lu ñu bëgg a def jullit ñi seetlu seen bopp xam ne li leen dalkat ñoo ko yóbbee seen bopp ñoo ko yóbbee seen bopp mooy xëccoo àdduna xëccoo àdduna Seydina Omar daf daan def saaba yu mag yi ku ci bëgg a génn bi nga xamee ne not nañu réew yu bari réew yu bari dugg nañ ci ci lislaam bi te ñoom saaba yu mag yi dañu leen di wormaal di leen fonk di leen joxe addiya yu nekk ku ci bëgg a génn Madina Sidna Omar ne la déedéet xare yi nga xare woon ànd ak yonant bi doy na la tey li gën ci yow mooy nga bañ a gis adduna adduna bañ laa gis adduna day fekk nit day defar ba noppi adduna yàq ko sallallahu alayhi wa sallam nee na ay fitna dana ñëw yoo xam ne moo raw dagg yi ci lëndëm yi nit dana xëy di jullit gëm ngoon si muy yéefar nit jant dana sow muy aji gëm biir set muy yéefar maanaam nit dana xëy di jullit gont di yéefar nit dana gont di jullit ngoon jot muy yéefar te li koy wëlbati dara lu dul seytaane ak adduna adduna ak seytaane ak bakkan ak bànneex ñooy noonu doomu aadama yi doomu aadama nag benn ilimaan rek la mën a am mucc mooy yàlla ak lu koy xamal yàlla ak lu koy jëmee ci yàlla waaye bu amee beneen ilimaan boo xam ne dafa wuuteeg yoon wi rek lor na boppam dañoo dem nag ba tollu ci jamono joo xam ne ñii fo ñooy am alal ñooy am tur ñoom la ñuy dégg chef d'état yi sax ñu leen ëpp prestige kii ñaq di daan dooleem daanaka bul amee lu mu lekk ca lay yem kii fo mooy rule ci ay millions kon jamono ji yàqoo noonu day daal di xëcc ñëpp jëme leen ci po fokkat yi saf nit ñi ba nga xam ne buñ nee sax mbub mii diwa ko moo mën àttan nañ ko jënd ci xaalis bu bari gis ngeen ne suñu su pële mi daan football dañ ci daan fay ay millions gis ngeen ne ku fi jaaroon ci sax am na benn fokkat bu fi jaaroon xaw ma James Brown xaw ma nit ñi di ko dab xale yi di ko dab di ko jox kayit naan ko signal ma fii maanaam am signature bi rek honneur dañ ko def bu mag bi ci ñoom li ñuy wax les les jeux de stade ak waddet yi ba suuf si daj xale yépp leen xam daanaka jaamu lañ leen di def ndax gëm leen ak fonk leen waaye ki ne ci dëgg di jihaar duñ ko xam duñ dégg tëram du leen sax bu leen doom moom it duñ ne diwoon bi wala duñ ko xam waaye dégg ngeen Michael Jordan ki ñu ngeen xamul Mohamed Ali mi daan box waa Amérique dem nañ ba ne budul woon tawat di ko dal duñ ko teg nit dañuy defee nit ak leneen la nga xam ne kon ñi ñuy yéem daanaka ñi fi borom découverte scientifique yi nga xam ne ñoo fi def lu jëriñ nit ñi sax di jëriñ nit ñi ba ba adduna tukki sax fonk ñu leen ñu bari xamuñu leen waaye fokkat yi la ñu xam fokkat yi ngay xam ñu nekk fa gën a sori nga xam seen jëmm ndax gis leen ci télévision ba boo daje woon ak ñoom xam ne diwa ngi xam fa mu dëkk xam ñaata at la am xam fu mu toll xew-xew lu ko dal ñëpp xamandoo ko ñu ne la abidi pele sàcc nañ ko fi nangam ak nangam te wóor na ne ñu ko mag gën sax moom sa jullit la waaye ñu ko gën a farlu ci jaamu yàlla nga fa ñu def leneen lu ko ëpp dal leen te kenn yëgu ko kon doomu aadama surtout xale yi surtout ñi gën a dëgg jumbul adduna am nañu yeneen i yàlla am yeneen i imaam am yeneen i ñu ñuy naw am yeneen ñu ñuy roy am yeneen ñuy topp lu ko def wala bokk ngi ci waaye parents yi ñu ngi ci dañu am lu ñu leen laaj ëllëg ndax yar ba ñu war nañu waroon a sonne ci yar war a xam jamono bu ngeen seetee ne sëñ Tuubaa biñ koy laaj ana ku am sëriñ mu làqu wala mu dem ci réew yoo xam ne mënatoo koo gis ndax dangay wut beneen sëriñ wala déet te mu ne ko bala ngay laaj loolu laajal nu sëriñ bi mel tegtale ñetti sëriñ yi ñetti xeeti sëriñ yi sëriñ bu ci nekk ak la nga xam ne moo di sàttam wax na ca ci seexu tarbiya day xam jamono xam wëlbatikuy biddéew yi ak la muy jeexital ci xoli nit ñi xam yàqu-yàqu jamono ak fa muy jóge ak na muy yàqe ak na muy def ci xol ak la koy faj ak na muy yare ku ko xamul doo mën a yar jamono ba nga nekk dañ lay dépassé doo leen mën a wax lu ñu lu dugg seen bopp kon ba tey falawlaa nafar min kulli fiqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahu fi diini al fiqhu fi diini dafa yaatu dégg diine da ngay xam diine xam lépp da ngay jàng zahir jàng baatin sala yàlla xam na ko bu doon tàmbalee wax yàqu-yàqu jamono yi te yépp ñëwagul daanaka mat na ñaar fukki at booba yi ci bari sax xam naa ñu ko daan déglu duñ ko xam léegi dem nañ ba am ci yu ñu gis wala yu ñu xam waaye yàgg na de léegi nag jamono guddi gi xaw na kilee xam nga exposé moom te binduloo dara da ngay tañaxo rek yaakaar naa ne laaj yi mooy gën a neexal waxtaan wi exposé nag li muy jëriñ ubbi laaj yi ko defee li ñu doon waxtaanee ci am loo xam ne dese nga koo dégg wala am na loo xam ne d'accord loo ci loolu wala loo xam ne lii loolu am na ci lu desee leer wala nga ne xamuloo lu tax ñu wax nga ne ko nangam diw nangam lu tax nga wax ko mooy débat kon ñu dem ci débat yi tuuti laalal tuuti ni ko sëñ bi gisee woon yàq yàq
waaw sëñ Tuba radiallahu taala anhu dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di cheikhu taalim di cheikhu tarbiya di cheikhu tarqiya dikk ci jamonoom mat sëkk male ni nga xam ne buñ seetee ñi nga xam ne ñoo séq ñoo séddoo l'islam bi ci denn yoon doon yonent bi islam nga xam ne kenn ku ci nekk wet da nga ko doon ne dafa boole yépp bu nu ne ci jàngale l'islam ak xam ko ñu seet kilifa yi nga xam ne ñooy ñeent yi imam Abu Hanifa imam Malik imam Shafi imam Ahmad ibn Hanbal Sëñ Tuubaa daf leen a doon ci jàngale diine lim bind lépp buñ ko jàngoon dootu ñu am benn gat lépp lu mu leen tax lu lépp bind na ko bind na tawxiid ba lépp lu ca doy a xam bind na fiq ba lépp lu ca doy a xam bind ci tasawuf lépp lu ca doy a xam xam la it ne lépp lu ngeen aajo woo xam ci lislaam warlu naa danaa bind téere yoo xam ne lépp dana ca nekk santaane ñu jàng ko daan def képp koo xam ne ñëw nga jébbalu daf lay laaj bu fekk ndax am nga ndey ak baay boo amee ndey wala baay mu ne la yow da ngay takkoo maanaam da ngay dem di leen toppatoo di sàmm seen àq tey ñëw di ziar ñu di la gindi di la xetli bu fekkee ne amuloo ko tey ndaw mu yóbbu la ca daara ja boo dee mag moo xam ne jàng weesu na ci yow mu def loola tërbiya kon ni mu nekkee woon cheikhu taalim nga xam ne jàngale na ba tàyyi bind itam lépp lu ñuy war a jàngale ba bind ci naxwu grammaire arab bind na ci tërbiye itam dafa tàmbalee woon a bëgg yar réew mépp mu tërbiye leen ndax ni mu daan def nga xam ne daara ju mu ber seet koo xam ne kii defar na ko ba koo ko defaru mu tërbiyee ñooña ba ñooña mat kenn ku ci nekk moom it dem sa si sa daara bu loolu continuer woon réew méppay daj ñëpp di nit ñu defaru ñu seet ko ci ñi nga xam ne ñoo sësoon ci moom ni ko sëñ Fallou daan waxee rek daf leen a jàngal bañ ne nër mu yar dañ leen daf leen a jàngal bañ ne ar mu yar leen bañ ne nër kenn koo ci gis moo la ko xam-xam moo la gën a yaru moo la gën a woyof moo la gën a amuk taalibe moo la gën a xeeb boppam moo la gën a gàtt lamiñ moo la gën a gore moo la gën a maandu moo la gën a sàmm wëllëre moo la gën a ragal yàlla gën la koo xam loolu lépp mu def ko ci ñoom bari na ay waxtaan yoo xam ne waxtaan nañu ay méthode dam ci ni muy yare ay leçon yoo xam ne yi daf koy concrétiser maanaam ñi jàngale xam nañ ko concrétiser koy matérialiser ba nga xam ne day sax ci xolu nit ki ba nga xam ne dootu ko fàtte mukk moom ci boppam meloo boppam rek doy na bi yar tarqiya itam xam ngeen ni tarqiya moom ay xeeti xeeti xeet la ndax ni nga xamee ne tarbiya ay méthode la ndax tarbiya boobu ak tarqiya boobu moom bi mu bindee ngir ñi nga xam ne dañu war a gindiku ci njàng rek ñu fekk fi li li mat a jàng lépp mu bind ko ñi nga xam ne itam dañoo war a yare mu formé leen ba nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yarekat nga boo xam ne lu jamono yàqu-yàqu dana dana la fegal yàqu-yàqu yooyu ñu dem nag ba jamono dikk joo xam ne nañ ko daan toppee ak nañ ko daan bëggee jamono wëlbati ne ko ndax dugal na ci nit ñi ay itte yoo xam ne mënula ànd ak yu bari ndax jamono ko indi ni ma waxoon ci tàmbali bi ne jamono ci boppam suñu borom la kenn du ko ŋàññi waaye melaw nit ñi ca jamono jooja moom mooy li ñuy ŋàññi moo wax ne léegi adduna bi dox gi muy dox gaaw gi mu gaaw ak yu bees yi muy indi te ñun ñu xamuñu ko woon ak itte ji muy def nga xam ne nit ki day aajowoo yu bari yoo xam ne bu njëkk daawu ko woon aajowoo xam ngeen nit ki bu njëkk boo bayee sa tool gerte ak dugub boo góobee sa dugub def ci sa sàq jaay sa gerte amatoo benn itte ba ruuji jot ñooñu seen amoon nañu avantage seen xol day féex dara du ca nekk yomb naa dugal yàlla waaye bu fekkee ne nit ki yu bari ay itteem la bu xëyee problème yi daf koy wër bu demoon ba nga xam ne am na at lëfit mu ngi xalaat naa aji naa jënd oto naa tabax étage naa am compte ci banque bu rëy naa dem dëkk sàngam naa def nangam yooyu yëpp day dal di jël ci tangam lu baree baree baree bare kon loolu nit ki lu koy mën a sowee sëñ bi bind ne ko ki nga xam ne fekk na ci jamono boo xam ne nit ñi dañoo noor ci adduna ba xuus bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon wax bul xuus ci adduna xuus bu lay fàttaloo ëllëg bu lay fàttaloo yàlla nit ñi tollu ci ba tey am na façon tërbiyee boo xam ne day tax nit ki lu mu dugg dugg ci adduna du dox digganteem ak yàlla dégg ko bala ñuy def rajo bi mooy moom moo taal fàll yaakaar naa béykat ak béykat maanaam dafay laaj li nga xam ne dañ naan wala ma takk jabar sama ma takk jabar waaw léegi nga xam ne tëkk mbokk yi dañ gëm dañ gëm ko ñu gëm loo gëm loolu lislaam am ñoo xam ne dañuy egg ci ni ba bu ñu takkee ba noppi mag ñi takk
même bu fekkee ne magam takk na soxna moo mel mu am soxna it bu bëggee ñaareel bu ñaareel te magam ñaareel ba noppi xaw na reeru tuuti waaw xaw na reeru tuuti waaw loolu moom du problème mu lislaam moom loolu dara ba nekku ci xanaa ñu ñee ko def aada aada yi xëy na dañuy bañ xëy na nga yàpp mag ji wala ñu di nga la la ko rusloo ko wala yu mel noonu xam naa dañ ciy bañ waaye nag du lenn lu sharia bañ du lenn lu lislaam bañ ndax soxna moom du farata ci ñëpp farata la ci ñii di sunna ci ñii du mën dóog maanaam lu ñu sopp la ci ñii di lu dagal rek ci ñii ki muy farata ci moom mooy ki nga xam ne am na lu mu yore kër te bu tekkul soxna dana jàdd yoon kooku moom lay farataam mu am soxna ki nga xam ne sunna la ci moom mooy ki nga xam ne am na lu mu yore kër waaye bu bu kërul it du jàdd yoon comme ni yonent yi def loolu muy sunna ki nga xam ne nag moom mooy ki ñu sopp ci moom mooy ki nga xam ne li mu amee bu tekkee soxna dana ko mën a yor waaye dana sonn te bu tekkul soxna it du jàdd yoon kooku dañ koo sopp rek ki nga xam ne nag bu tekkee jàdd bu tekkul jàdd dafa dagan rek ci moom waaye tere nañ ko jàdd de tere nañ ko ko moom tere gu sax gu dëkk waaw.
jërëjëf léegi am na ay laaj rek yoo xam ne. suñu borom def na leer daal mbir mi mu gën a leer. waaye mën na fekkee am lu ci jëlee. ndax bu fekkee ni dangaa yor soxna soo xamante ni lii. ngeen baal na nag ndax li ñu suñu rek mooy dañoo xam ne ci njëriñ li ci jóge daal. am na ñoo xam ne dina leen mën a jëriñ lu bari. te du tee. lu dugg ci biir sëñ bi. dangaa yor soxna soo xam ni. amoo cofeel ci moom. ba noppi nga yor ko. nooy def. léegi sa diggante ak moom. soxna soxna nga xam ne may nañ la ko te amul cofeel ci moom.
soxna si nga xam ne may nañ la ko te amuloo cofeel ci moom ndax yow yaa ko ñaani wala déet fekkee ne dañ la ko imposé rek te ñaani woo ko soxna moom kenn mënu ko kenn waru ko imposé kenn ñu tey bëgg dem wuti ko bu fekkee ne nag yow yaa ko wutoon na nga seet sa diggante ak yàlla ndax yaa ko jëlee fa mu nekkoon. jële ko ci ndeyam ak baayam dëgg la boo seetee sax moom fiq shariatul islam moom bu fekkee ne ñaar lañu nga am ne ñaari soxna ci soppeel ak yooyu moom yoon sëntu si kenn nga yemale leen waaye nag looy séddalee ñoo ci war a yemale bu fekkente nag dañoo sutante kii nangami mètre jot ko kee nangami mètre jot ko kenn ku ci nekk la la war ci moom mooy la ko jot rek bu fekkee ne kee moo gën a njool moom ngay xottil li gën a jot moom ngay xottil maanaam li gën a bari ndax mu jot ko ki nga xam ne nag moom benn li nga xam ne mooy àq ci ku góor ki ku jigéen ci moom ko na am wutal ko fu mu dëkk yaa ko war a wutal fu mu dëkk bu nuyee it yaa ko war a fayal yaa ko war a jox dund yaa ko amel lu muy sol gannaaw loolu itam amel nga ko suturaal ko aar ko aar ko ngir mu ñoom yooyu nag bu fekkente ne ak li ci def li ci def ulama yu am nañ ci wax yu bari yu wuute am na ci ñoo xam ne dem nañu ba ndax dafa aju it ci nit ku góor ki ci man-manam ak ku wéram am nag bu fekkente ne nag dafa def li ñuy wax zihaar moom dafa wax wala mu giñ ne moom dootu jotee moom dara kooku moom dafa am àpp buñ koy àppal bu bu jotee te te jotewul ak moom dara ñu dindi ko bu fekkee ne neex na ku jigéen ki bu fekkente ne nag zihaarul maanaam waxul giñul ne euh, nangam waxul itam ne ci coobareem dootu jotee moom dara lu dul dafay seet man-manam digganteem ak yàlla am na ci ulama yi ñoo xam ne juróom-benni weer lañ ko àppal am ñoo xam ne dem nañ ba ci juróom-ñetti weer ulama yi wax yu bari lañ ci am bu fekkente ne nit ki kii daf koo neexul waaye xam na ne moom soxna ma te moom moo ko takk du tax xaq jooju wadd doo tax xaq jooju rot rot maanaam xaq ji nga xam ne yi ma limoon ak loolu ma wax léegi maanaam daal lu ñuy suturaal li loolu itam lu war la ci moom war gi nag ci kam kàttanam waaye dañ ko sàkkal ab boo xam ne bu amee bu ca àggee lor lay doon te bu ca lor amee bu fekkee ne kalaame na dañuy dem ci xawaat yi yi atte atte seen diggante lu ca war ñu def ko ci waaye ci kaw nag kaa yi ndax kaa yi day wuute ay wuute yu bari yoo xam ne ay détails lay doon loolu moo tax génn dugguma ci biir wante bu ko bëggee bu ko bëggul yëpp feeg soxnaam yooyu moom war na ko ci moom dund wadd dëkkuwaay aar suturaal jàngal bu fekkee ne réere na diineem jàngal ko war na ko bu ko mun la jàngal itam bu ko tàggoo jàngi waru koo tere ak loolu nga xam ne moo ne li ci nekk daal mënu ma ko xam ngeen ko loolu it noonu ma ko waxee rek yooyu daal moom war na ci moom bu ko bëggee bu ko bëggul bu fekkee ne moo ko takkoon bu fekkente ne nag dafa àgg foo xam ne mënatu ca dara dara dara bu boobaa loram la di loru ku jigéen ki kooku mën na yëwan loog moom waaye nag dana sori.
waaw fii daal di leen ko laajee. ñu ne mën nañu ko si tool bi sax. waaye ndax mooy dafa dafay laaj ni. dañoo wax ne jibril. dootu wàcc ginnaaw micro bi baax.
waaw dafa wax dina mooy jibril dootu wàcc ginnaaw yi.
Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dañuy wax ni doon na wàcc seen tuwa. waaw loolu la laaj.
ah jibril kay dana wàcc gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seetal téere si watiw bi wa qila inna jibraila yahduru man maata musliman wa qawman kafaru majiahu ba'da rasulillahi wal haqq an laysa lahu tanaayi jibril dana wàcc ba tey ni mu daan wàcce nag ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di indi ay farata ak i ak i tere ay digal yoo xam ne lislaam la ak i tere ak ay aaya boo dootul am waaye wàcc gi moom du dañ ba abadan wàcc gi moom day am ki muy wàcc ci moom du ko digal nag loo xam ne farata la wala loo xam ne lii du jullit ñi war a def la wala muy xaraamal dara wala maanaam benn àtte daal du ko indi boo xam ne day war jullit ñi waaye nag wàcc gi moom dana di am إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لله مودي muy jibril muy yeneen malaayka yi bi ñu dañ di wàcc ñi ko gis moom duñ ko werante ñi gis jibril moom duñ ko werante xam naa ñi ko gisul nag it mënuñoo indi benn lay bu ne dootu wàcc li wàcc gi nga xam daal mën nañu wax ne dootu ko wàcc gannaaw rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy di indi yoon di tëral yoon di tëral maanaam lii farata la lii yàlla tere na ko lii nangam maanaam yeneen lu bees daal luy bokkul ndax alyawma akmaltu lakum diinakum ba mu wàccee la jibril gëjee wàccee loolu wàcceetul ci keneen wàcceetul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax lu dul leneen maanaam ay secret waaye wàcceetul ngir indi benn atte wàcceetu ko gannaaw alyawma akmaltu lakum diinakum bis booba la wàccu jibril ci anam googu jeex waaye nag ak wàccam ci leneen moom du dañ mukk xanaa jàng nañu tanazzalul malaikatu war ruuhu fiha bi izni rabbi min kulli amrin salaamun hiya hatta matla'il fajr jàng nañu inna anzalnaahu xanaa
léegi xam naa rek maanaam ginnaaw xeetu guddi la te ñi nga xam ne ñoo def guddi gi yaakaar naa li nga jël def muy exposition bi nga waxoon am na solo lool ñi fi toog dinañ ko jëriñoo. ñu jël ci yeneen ñaari laaj yi fekk yoo xam ne jëriñoo nañ ko. am na nag loo xam ne ñu bëri. ñor na leen lool. te doon na maanaam tàmbali waxtaan wala thème bi. ci diggante li nga